ñun mënuñu dul am njaxare rek ginnaaw bi nga xam ne nii ñu yàgg di artu ay at a ngi nii quatre vingt dix huit quatre vingt dix neuf deux mille jékki na rek ne fàng ñëpp teg ci seen bët mu yàgg nañu di wax ni organisation Miss Jongama ak Miss Sénégal yàq na xale yu bari loolu ma waraloon ka daan organiser mais dafa ñuy yóbbu tribunal presse bi yëpp jàppale ko ci daal di jaboliser Jamra waaye gis nga li yàlla di def day lu ne fàng moom kenn du ko jeex ndax kenn mënul woon xalaat ne Miss si boppam édition deux mooy def ay révélation yu graaw ci anam bi nga xam ne noonu nañ leen recruter demander procureur saisir aussi ba pare tas kuréel ndax yàq xale rek ndax réeréew leen mbir ni viol la loi deux mille vingt zéro cinq du dix janvier deux mille cinq def ko criminaliser dan nag président comité d' organisation bi nga xam ne moo waroon defal xale yi ci natt bi leen dal amul dara lu mu def lu dul naan leen ku ñu violé yow la neex waaw kon yoon nee na ku wax loolu yaa ngi kañ viol yaa ngi def apologie du viol ñaareel ba équipe du jàngra bi nekk sur le terrain di continuer seen i jéego pour rencontrer directeur société commerciale ndax ñu retirer seen ndimbal ñu ngi sant euh, CFAO Sénégal ñoo jël nañu lee devants ba nangu nañu oto ak xaalis bi ñu joxoon ni Sénégal yëpp na ñëpp a def noonu ñu tas kuréel bi ndax li ñu yàq ci ay doomu jàmbur doy na sëkk di profiter ci crise économique bi et sur la crise de l'emploi dañ ko war a dakkal mu jeex